baax di leen ziar rawatina yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois seen émission jàngatu lamb tey ñu fas yéene waxtaan les atouts de Balla Gaye face à Gris Bordeaux euh, ba indi nañ leen les de Gris face à Balla Gaye ndax ñoom ñaar donte seen combat euh, mi ngi euh, taxawal nañ ko suñ papa Gaston ñu koy nuyuwaale au passage ñoom ñaar ñu bëri woon la 31 mars 2018 tey nag ñu war a bëri mais comme que Covid bi dafay nekk te saison bi ti jeegul incha allah dañ ci gën xuusaat mais dañ cee ànd ak ay experts yoo xamante ni ku ci mel ni Malick Thiandoum borom i rajo ak ki nga xamante ni moom mooy Medoune Diouf borom improt ak Dembélé bu suñu làmb tey experts yooyu lañ am am nag benn jàngat boo xamante ni defal ko xam naa ci kanam tuuti incha allah di ngeen ko déglu sama chéri sama xarit ñu fas yéene waxtaan nag bilan écurie Bawol ñoom ñu def 15 combats 7 victoires 7 défaites benn match nul dañ dugg ki nga xamante ne moom mooy seen entraîneur Fallou Ngom loolu lañ leen indiloo ci li nga xamante ne moom mooy euh, ni moom mooy kàggu moo nekk ci technique bi après nag ñu ñëwaat si yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV euh, dégg ngeen sànq nag ni ma ko annoncé woon mais nag euh, dañuy bàyyi ki nga xamante ne moom mooy sama séeréer bu nice tey mu kiwal ñu li nga xam xamante ni Malick Thiandoum ba jàngat la def ci diggante ki nga xamante ne moom Balla ak Gris Bordeaux atu yi aca bas ñu dem Balla Gris euh, combat bu nar neex la parce que revanche la bu nga xam ni tey axlu làmb yëpp ñu ngi koy xaar li ñu ware woon ci premier combat bi dafa am lu ñu tuddee goût d'inachevé donc tey kenn ku nekk ci ñoom am nga à cœur wane ni combat boobu euh, la ca manqué woon da ko war a mottali ci combat bii di ñëw maintenant li ngeen ma laaj mooy les atouts de bala Gaye 2 face à Gris Bordeaux Balla bu nekk à cent pour euh, ay atome ñëpp xam nañ ko mooy combaam du yàgg contrairement ak combat bale nga xam ne mooy le combat le plus long de sa carrière contre Gris Bordeaux bu njëkk ba Balla bu nekkee en pleine possession de ses moyens kombam du yàgg da koy abrégé donc euh, atu Balla mooy d'abord mu nekk à cent cent de ses moyens bu nekkee à cent pour cent de ses moyens li ñu ko xamee mooy euh, mu nekk lutteur bu nga xam ni la mu daan def mu continuer di ko def parce que moom musul xaar kenn attaquant la nu continuer ci rythme boobu daw attaquer imposer la li mu bëgg a def loo bañ mu enchaîner ko parce que capacité d'enchaînement ak aussi euh, puissance am bu lay ñëw jël si loolu amul mbër bu nga xam ne daanaka mën nga ko dékku donc euh, tey jii atout Balla mooy d'abord mu am rapidité d'exécution beneen bi ci des mooy mu nekk ak dooleem nekk en pleine possession de ses moyens leneen li ci des aussi mooy mu bañ a ñëw rek ñu ne Gris xeexkat la mu ñëw imposer ko xeex foofu bu fa duggee peut-être mun na indi jafe-jafe comme keroog seen premier combat dóoral ma dóor la woon donc li mu war a ñëw imposer mooy même bu dee bagaar la na dem jàppante parce que jàppante mooy avantage am kenn bërandoowul ak moom jàngeen jëf ñu koy nuyuwaat bu baax baax muy suñu papa Malick Thiandoum nekk koo xam te ne la suñu la ñu koy nuyu bu a baax ñëpp dégg ngeen nag li mu wax ci li nga xam te ne moom moom Balla Gaye ndax mi ngi naan le 31 mars boobu mu woon ak Gris Bordeaux euh, moo nekk combat bu gën yàgg ci combat am mais nag Balla Gaye attaquant la moom combat wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne ay combat am du yàgg donte moo Gris Bordeaux ba ñu laalee ñoom ñaar yàggoon na mais bii nekk na combat boo xam te ne bu importance la ci moom parce que après xam naa dinañ dégluwaat ñeneen ñi ndax euh, avantage am daal nekkul pour xeex ndax jàpp ñëpp moom lañ ko ñëpp xamee te moom day abrégé ay combat am loolu la suñu papa Malick Thiandoum wax dañuy euh, dégluwaat ki nga xamante ne moom mooy Medoune Diouf borom TFM borom improt après ñu ñëwaat xoolaat jàngat bi acca bas ñu dem ma Dia sama doom Fatma loolu lu jafe la lu jafe la ci ay seconde ki minute boo ne les atouts atu yi dafa xaw a bari mais atu bi ci ëpp solo fi mu toll nii mooy le mental et la confiance de Balla Gaye ndax seen combat bu njëkk Balla Gaye il avait perdu ses repères manque de compétition doute maladie loolu yëpp mu ngi woon ci moom moo tax combat bu njëkk bi nekkoon lu xaw a difficile ci moom mais dañu fi jaar ay années Balla Gaye ñam fi victoire face à Modou loolu moo ko joxaat confiance bi ak mental bi nekk ci moom kon bu ñuy wax atu atu gënul la rëy physique bi nekk ci moom mental bi nekk ci moom ak euh, euh, rage de vaincre boobu loolu daal dama ko gisaat ci moom kon daal euh, bu ñuy wax atu ci ay minutes daal bu fekkoon fekkoon ne mun nañ ko yaatal dinañ dugg dëggantaan ci biir waaye daal atu moom rawul li nekk actuellement ci Balla Gaye numéro numéro deux mooy mentalu acier bi bi ma la bi ma la wax confiance bi ñëwaat rage de vaincre bi ñëwaat bëre bi ñëwaat équilibre bi ñëwaat yooyu daal vraiment mooy atu bi quoi. te Fatma xam nga force bi Balla Gaye am atu bu njëkk bi mu am il sait lire ses adversaires mën a cadrer ay adversaire am balaa dara. dalay observer sans déclencher atulawaat ci moom Balla Gaye c'est un lutteur aussi boo xam ne li atu ci moom il est très teigneux loolu nekk ci moom est-ce que bu ko tegee mbër moo xam ne mu amatul confiance mu ngi ci dut tegle na ay défaite ah je donne ma langue au ñu koy béggeewaat bu baax a baax mooy suñu papa Medoune mu nekk koo xamante ne moom it euh, wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni làmb macha allah ndax euh, wax dëgg yàlla def na ànd naa ku ku ne ki nga xamante ne moom mooy ci làmb dégg nag li mu wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, combat bi passé Balla Gaye Gris Bordeaux ne mi ngi ciy wax ay problème mental manque de compétition maladie doute mais ni ñu déggee mooy que ni Balla Gaye mu combat bi Gris Bordeaux du samay wax nag ñu ngi doon wax dafa feebaroon xam nga ñëpp xam nañ ko sax parce que moom wax na ko peut-être dafa am ci lu mu jóge woon ñëw doon testé boppam euh, ñuy fàttali nag gars yi naan euh, décision arbitrale la au point kon donc par point euh, la la gagné ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux Balla Gaye nag bi nga xamante ni il il sait lire il sait lire ses adversaires ndax ñëpp xam nañ ne Balla Gaye su taxawee bala moo def dara day xool adversaire bi ba pare soog def li mu war a def mu nekk mbër boo xamante ni wax dëgg yàlla moom macha allah ndax tey ku am vingt vingt et un am quatre defet kooku nekk na koo xamante ni kenn mootu koo jàngal dara ba pare wax dëgg mbër la boo xamante ni mën na bëre te wax dëgg yàlla nag euh, macha allah daal def na fi loo xamante ni ma euh, liñ naan rek marqué na empreinte ci li nga xamante ne moom mooy ci làmb dañuy euh, dégluwaat ki nga xamante ni moom mooy Dembélé bu suñu làmb moom it am na atu yu muy indi ñu déglu kàggu te ñëwaat. asalaamaaleykum Fatma nuyu naa la ma seen téléspectateur wasaare TV di la wax ni waaw euh, question bi ma laaj par rapport ak euh, avantage wala atu Balla Gaye 2 face Bordeaux euh, mën naa ci sawar parce que Balla Gaye 2 xam nañ ni ndaanaanu làmb la mun na bëre am na fit mën na xeexu làmb am na jàppale loolu kese ay atu la ci moom euh, Balla ay mbër lañ fi laajoon les meilleurs lutteurs de la litte ñoom ñëpp presque ñoom ñëpp ne Balla Gaye 2 la donc mën a bëreem kenn mënu ko weddi ci làmb euh, xam nga tamit mën na bëree wóolu sa bëree euh, loolu tamit atout la parce que nit mun na nekk bëreekat mu bañ a wóolu bëreem di calculer mais Balla xam na ni mën na bëri xam na ni jàng na ko xam na ni doomu champion la di ko jëfee loolu avantage la beneen avantage Balla Gaye 2 moom mooy que euh, doon na champion bi nga xamante ne euh, xeexu làmb lay def xam nga am na box mais moom xeexu làmb lay def maanaam nu muy xeexee euh, jaadu na ci làmb parce que dina fexe ba dóor la dina fexee ba déstabiliser la dina fexee ba jàpp la bëri donc loolu mooy xeexu làmb loolu lu am solo la ci moom euh, beneen avantage Balla Gaye 2 mooy fitam mbër bu am fit la xam nga fit dafa am solo ci doomu aadama nit mun nga mën a bëree mun nga am entrainement mun nga am ginnaaw soo amulee fit jëf li nga war a def doo ko def doo ko mën a def donc fit lu am solo la ci champion non Balla Gaye de am na fit loolu ñu bëri seede nañ ko beneen avantage bi moom mooy que ni euh, euh, dafa jóge ci ñaari victoire première bi Gris Bordeaux mais surtout victoire am contre Modou daf ko gën a dopewaat ak aussi avantage beneen bu mu am moom mooy que ni dafa bëgg nekkaat waa des arènes donc avantage la parce que motivation la te motivation dafa am solo doomu aadama lépp lu ngay def bu fekkente ni am nga ci motivation am na lu lay motiver rek da ngay dem ba jeex donc yooyu yëpp ay avantage la sauf que euh, bala léegi nu mu meloon avant côté entraînement de wàññeeku parce que day xaar quelque mois mu dem entraîner ji xaru donc euh, Gris Bordeaux comme ni ma ko waxee woon champion la bi nga xamante ni côté entraînement dafay faral di taxaw te écurie Fass duñ ko seetaan donc côté boobu laa xaaw am tuuti jëf euh, doute par rapport à Balla Gaye mais malgré tout il reste un champion parce que Balla Gaye 2 njëkk koo pare côté entrainement gën ko pare côté entrainement taxul nga déstabiliser ko donc yooyu yëpp ay avantage la di wax ni bii yoon moom bu soobee yàlla dinañ assister à un à un très bon combat parce que ñaari mbër yi ñoom ñoo bëggante parce que dafa am li nga xamante ni bëgg nañ ko leeral waaw ñu koy nuyuwaat bu baax a baax moom démbalee bu suñu làmb dégg li mu wax ci li nga xamante ne mooy atu ci Balla Gaye 2 il fait partie l'un des meilleurs lutteurs de sa génération parce que tamit wax dëgg yàlla du suñuy kàddu mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir làmb ndax ku fi nekk euh, roi de euh, roi boo xamante ni euh, ku fi nekk roi de arènes nekk fi roi de la banlieue kon donc am na lu mu def ci làmb j'espère que nag dinañ assister combat boo xam te ne combat bu neex ndax ñëpp xam nañ ni Balla Gaye euh, Balla Gaye bu pare rek kon euh, ni ko ñëpp waxee rek kooku lion la mais nag euh, Gris Bordeaux waa Fass dafa nekk koo xam te ni waa Fass dañ koo yàpp ndax tey Père Ibrahima Mbaye Abbas Ndoye ñoom nekk ñoo xam te ni ñu bees nañ ci làmb parce que combat bi am na lu leen jaral mais Balla Gaye 2 ñëpp xam nañ ne ba mu jógee ci Gris Bordeaux dafa def euh, benn combat boo xamante ni bu extraordinaire muy combat ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo ñëpp xam nañ daf ko daan à la manière pour mën a wone carrément moom mi ngi fi combat am nag ak Gris am na fu mu ko war a yóbbu ndax Balla Gaye ñëpp xam nañ lu nekk ci xel bi moom mooy nekkat roi des arènes chaque jour loolu la Gris Bordeaux dina ko may wala du ko tamit loolu nag euh, yen ñi nga xam te ne yéen ñu ñuy seetaar sur Wassare Lamb question boobu yéen lañ ko bàyyeewaat ndax Balla Gaye Gris Bordeaux ñoom ñaar ñëpp ay bañkat lañ ah mais daal euh, lu ñu mën a wax daal moom wax dëgg yàlla combat bu neex la te dañuy ñaan yàlla mbas mi nga xam te moom moo fi nekk mu jeex saison bi tijjiwaat euh, combat yëpp taxaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, xanaa di leen di bëggewaat ñëpp ah ndax gis nañ ñu confiance bi ngeen am si ñun di baalu ñëpp ak di baalaat ñëpp ak di jox dig euh, yéen ñu leen di jox dig daje euh, ba semaine prochaine incha allah bien vrai que nag ñu ngi dugg ci weekend xanaa di leen jaajëfalaat rek naan leen weekend bi xam naan dina neex parce que dinañ leen indilaat leen loo xam te dinañ ko mën a mottali ko ci kàttan yàlla ba leen deg jàmm incha allah